mawɗo di leen di ñu ngi leen di ziar bu wér a wér di leen dalalaat ci seen uh, site uh, Sénégo émission géew bi wala géewu Sénégo ci la ñu nekk ñëw fekk si tey fii ci Lansar waawan ci Tarkindaa yi fëgala moom la ñuy fekk si fii mu jugee fraîchement aux États-Unis démb si dimanche bi ñu am benn entretien boo xam dañ koy def moom man ak moom ñu dugg ci biir géew bi di ziar gars yi xam ñoo nekk ci àllu làmb bi ak ñi ci nekkul di bëggee liggéey bi ñi nekk Italie le nouveau marié bébé Modou Lo ak euh, soxna si Ndeye faatu Mbeng ñu ngi leen di ziar soxna si yàlla njaboot gi barkeel yàlla na lépp barkeel ngeen am ay milliards di nuyu xarit di nekk foofu yëpp waa Catania di nuyu ñëpp États-Unis France une fenn euh, fëgala alors démb nga ñibbisi jóge nga États-Unis après quelques mois bu ñu waxee ay six mois et ma bàyyi la nga nuyu ak euh, Sénégal ak euh, gars yi xam ñooy bëgg fëgala waaw Pape Maguette ñu ngi lay nuyu di la fay ak équipe bi nga àndal nuyu waa Sénégal yëpp équipe bi nga àndal sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñu ñaanal Serigne Saliou Mbacke yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ak njabootam yëpp njabootu sëñ Afia Mbacke njabootu sëñ Fallou di nuyu sëñ Axma Mbacke njabootu sëñ Baara bu wér nuyu sëñ Axma Mbacke bu baax a baax a baax di bëggee. bëggee nga gars yi quoi. gars yi yaa leen namoon wala namoon. non maa leen namoon. Hmm. jataay bi gis nga ma ah. namoon yii quoi maa ah. namoon jataay bi quoi mais nag di profité ci occasion bi di nuyu suma yaa sagar. Hmm. sama yaay ji ma fa daloon di nuyu sama yaay ji ma fa nekkaloon yaa sagar di ko nuyu bu baax a baax nuyu bëba sama frère suma gaayan père Bidjel Fall ma Amar grand ma Amar maa Omar fay xam nga Père Alsaan gars yi ma fa nekkaloon yëpp ma fi à jeez bi yëpp daal. léegi boo amee ñoo xam ne da leen di fàttaliku bu ñuy jeexal nga nuyu leen. ma nuyu leen ziar leen nga bigab leen. bigab ah. leen bu baax ah, sa gars yi ñu fi fekk ah. parce que waroon nañ ko defee ci biir. Mm-hmm. mais ñëw ñu namantiku. ak gars yi toog naan caayin borom caayinu borom fuural bu bëri bi. ah borom ñaari guux bi. <laughs> mais man moom sama kaas bu ko fuural dégg nga. alors euh, ñibbisi nga ñaata temps nga def États-Unis waaw def nañ presque six mois six mois lañ def ñibbisi six mois yu manqué une semaine. yu manqué une semaine. mais def ñibbisi. demoon foofu doon dóor waar wala nekkoon ci waar bi maanaam. waajal saison bi demoon demoon waajal suñu bopp parce que ñun ba tey. 2008 hmm. ba tey su ma juumul non 2007 ba tey maa ngi ne chaque vacance ñu tukki loolu la yàlla dogal 2000 depuis 2007 ba tey. Hmm. ñamoon suñu benn grand bu baax. Hmm. Babacar ñu ngi koy nuyu grand Babacar Diallo. moom moo ñu proposé woon yooyu pourquoi pas vacances jot ngeen war fi toog ngeen génn changer di depuis boobu ba tey grand Babacar Diallo ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moo de moo ñoo toogoon un jour mu proposé ñu loolu boobu ba tey yàlla def na mu bëgg yéene bi dem na bu ñuy tukki sax du ko yëg dañuy dem ba pare rek doo koo woo. dem dóori demaal dóori waale waar. waaw mais ñun ñun bu ñu demee Amérique. Hmm. dañoo dem Amérique pour pour vacances. bu ñu hmm. demee bay waaj a ñibbi si entraîné bu préparer suñu saison. fii sax bu ñu fi nekkee nekkuñu ci làmb rek dañuy business. Hmm. xam nga yàlla def na dañ doon liggéey mécanicien. bu ñu gisee oto bu ñu gënal dañ koy jënd. def ci liñ ci war def jaayaat ko. bu ñu demee tukki bu ñu demee bay ñëw gis oto bu ñu intéressé ñu jënd ko bu ñu ñëwee joxe ko. kon bi nga ñëw daal nga ay oto. ñun daal dañuy liggéey ñun dañuy liggéey. non da ngay business. dañuy liggéey dañuy liggéey. làmb ji damay dégg gaay naan. mbëri bu demee damay dégg gaay naan. Mm-hmm. benn occasion profil damay dégg mbëri gaay naan. Mm-hmm. am na ci mbëri yu def loolu sax mbëri nga xam ne ay siisu maan lañ. Mm-hmm. dañ naan gaay bu ñu demee entraîné dañuy liggéey kërëb kërëb. maanaam ku mën a dem di ñëw yor sa billet mu mat mën a dem di ñëw da nga koy def boo dee yàlla def na ni mënoo dem di ñëw da ngay dem nga toog liggéey bàyyi gaay yi dem di ñëw parce que yéen yi pour man soxor la mbëri bu ñëwee entraîné wuñ dañuy liggéey ku mën a entraîné mën a liggéey boo ko mënee def defal yaa ngi dégg waaw du dara ku mën a ku mën a nag bëre ba pare yor sa xaalis mm-hmm. yaa ngi dégg mën a dem vacances da koy def bu la neexee def six mois ñëw mais am nañ bëri yoo xam ne comme dem nañ mënatuñoo ñëw mm-hmm. xam nga évasé nañ ci dëkk bi buñ gisee gars yi dem ñëw bu profité ñëw beneen il faut ñu ne non naa si benn mbër bu koy def ñu mm-hmm. demoon vacances dañuy waaw man un su ma ko amoon naa dóor waar un mois yëpp ñëw ñibbi sax waaw d'accord mais c'est tout à fait normal waaw d'accord ñun pareeguñ ci làmb ñu ngi suñu carte boo xamante ne inscrit suñu salle deux ans inscrit nañ suñu salle deux ans mi ngi dox ni chaque mois dinañ ko fay bu ñu demaatee fa la ñuy jubali entraîner xam nga ku fay loolu jënd say producteurs yor sa entraîneur xaalis moo koy def yaa ngi dégg ñi ngi sant yàlla bu baax nag bis buñ tollee ci war a dem Amérique liggéey dañ koy def mais tollaguñ fa dafa am lu ñu ameel Baye Fall yi war leen koo fay yàlla dogal na daaw ñëwaat nañ am combat yàlla may ñu ndam ci Jokkel loolu du victoire bu ñuy kii dafa duggoon Lamsaar am nu mu fi def rek yaa ngi dégg di bandi baa ñu cantal ko ñeneen ñi lañ gën a soxla wanewaat suñu bopp ci làmb bu demee ba jeexal làmb suñu xel fu ñu yàlla yóbbu ñu war fa mujje ñu mujjee fa mais au passage maa ngi nuyu sama benn gayan ndeysaan ñoo bokkoon rajo Afia FM Grand Yoff Omar Seck maa ngi lay bu baax baax ay naa ay cinq ans ngi nii gisante wu ñu xaw ma six ans presque ah. ma koy dégg réew maa ngi lay bëgg bu baax a baax. sa koñ laa ñëwoon te sama frère la. ñoo bokkoon Afia bi ñu may yàgg na yàgg na trop. maa ngi lay nuyu bu baax a baax copain mon frère maa ngi lay dégg maa ngi lay gis maa ngi lay suivre ah. ñun ñëpp ñu ngi si waar bi xam naa dañuy jékki-jékki rek tasaaroo. mais dañuy jékki-jékki daje ah Omar Seck. dégg nañ bu baax a baax a baax ah ñu ngi lay déglu réew mi ah waaw jaajëf. di profité bu baax di ko nuyu moom suñu waay la suñu waay la Omar Seck dañuy bu baax moom suñu waay la. wala mbaax la ndeysaan yàlla suñu borom mooy dogal nii ñëw fekk si fëgal la gisante koo xam ni mat na ay six ans ngeen bokkoon benn liggéey ku nekkoon nekk ci waar kii jaar ni kii mm-hmm. jaar ne loolu mbiru suñu borom la ñu koy sante yàlla ndaxte jot moo amatul mm-hmm. alors nga da nga jóge ci benn combat nga dem États-Unis dem préparer pour saison bi parce ba ñuy ba ba ñuy jógee ci ba ñuy jógee dañu jóge woon ci defet mu mu métti torop mm-hmm. ñu toog suñu kilifa. Mm-hmm. waxtaan ak moom mu ne il est temps comme yaa ngi doon dem Europe bi il est temps nga dem Amérique demal Amérique. Mm-hmm. boo demee après nga woo ma ñu gérer ñu dem. waxtaan. ñu inscrire salle. yokk suñu lépp yokk suñu xam-xam. ñëwaat yàlla avant ñoo ñëw yàlla may ñu combat ñu nag benn booy. du ma ci waxaat sax. maam bala yàlla dogal combat ba yàqu ci diggante mook promoteur bi ñu jëli Jokkel. daan ko bañ ko daanee ba pare deux semaines mu woo ma. na ma loo fi def ma ne ko non maa ngi toog ba ci kanam mu ne ma demaatal ñu demaat di ko profité di ko nuyu mu Cheikh a Diop ñu ngi koy nuyu bu baax borom kër Mbay Fall xam nga borom terrain yu baax bray yi nañ la booleeg moom ci quatre ans borom terrain combat borom terrain <laughs> combat boo daan ak terrain <laughs> allah uh-huh. ñu mais après après nga daan nga daan Jokal mais combat boobu noonu bu ñu si dellu si waatee tuuti mu nekkoon combat de danger pour yow parce que dafa am foo jugee woon mm-hmm. mu toll nag benn moment boo xam ne tamit Lansar ci mm-hmm. saison bi daanaka mën nañ wax ne seen parcours demeewul noonu ci saison bi presque fin de saison nga nga nga bëri. Mm. nga bëri combat bu yow ak Jokal mu nekkoon combat boo xam bu diis la woon ci yow bu mm. diis ci ci waa Lansar. waaw mu combat bu diis la combat bu diis bu métti ci man sax parce que mm. tey bu la daanoon kenn xamul foo jëm. xam nga bu la daanoon kenn xamul. foo jëm c'était le 12 mai. waaw 12 mai la waaw 12 la 2018. kenn xamoo foo jëm. te tey xaaruñu ma ci ba combat sax maak ak parce que am na sumay morom yu ma wara a bëreel ci làmb. te tey boo toogee benn defet bi rek am benn defet bi rek amaat combat mu yéex rek gars yi dañ la fiy bàyyi làmb kenn xaarul kenn moo tax ñu jël ko mu métti trop ci ñun nag. Mm-hmm. boo xoolee stade sax. am na sax stade bi ñu ci bari ñu ñëwul. pour mm-hmm. ñoom fëgala bu demee du am ndam. Mm-hmm. xam nga mais yooyu yëpp suñu borom mooy dogal te ñun gëm nañ suñu bopp luñ jël dañ ci rafet njortu ndam moo tax ñu koy jël. ak xam combat bi fu ñu mën a yóbbu xam buñ ko ñàkkee fu ñu mën a yóbbu. ñu jël ko ànd ceeg suñu mbokk ànd ceeg Baay Faal yi. mafia bi. waaw ñu nekk sama ginnaaw dooleel ma. yaa da ngay entraîné ñëw sax nga gis nit ku ne la nekkoon jàpp waaw parce que nag xam nga Serigne Touba xam nga xam nga <laughs> xam nga Serigne Touba ay ay ay mbiram moo demee noonu tànki kanam la am pël yeeg tukulóor yi ñëpp dinañ ñëw incha allah comme tubaab yi ñooy ñëw di nangu si te ñoo bañoon mm. ñëpp dinañ ñëw américain yi sax nangu nañ non ñëpp ñooy boo demee Amérique màggal gi da nga naan déedéet da nga xam ni sëñ Bamba ay mbiram tànki mm. kanam rek la mm. di profité nag di nuyu sëñ Modou Kara bu baax di ko waajuram bu jigéen dafee wàññeeku ñu profité di ko jaare di ko jaale baax di ko ñaanal yàlla yokk leeram taas ci barkeem noo ni ñi lay ziar bu wér di la jaale alors bi nga jëlee euh, Jokkel wax nañ ko euh, combat de Touré pour la pour écurie Lansar ndax fa ñu tolloon mais lan moo tax Feugeula dem ba benn instant mu wàcc di jël ñi nga xam ni moom sax moo leen jiitu ci làmb ji bu lu yàgg sax ay at jël jokkeel. Hmm. la nekk nekk nekk en baisse quoi wàcc la moo waral wàcc bi. waaw parce que damay dama koy jàppee wàcc du ma ko jàppee wàcc parce que comme làmb ji lee dafa bëri business. Hmm. comme Jokal yàlla doxal na Kéba Kanté mooy taxawal ay kombaam Kéba mooy woo promoteur na ko diw laa bëgg mm. nangu ci def xaalis mm. loolu dem naa ba am ci lu ma leer kombaam mm. ak Tidiane noonu la demee xëy na Tidiane euh, gëj ci làmb ji préparé wu yenn préparé ñu préparé ba tëb na Tidiane lañ soxla moo tax mu demee noonu ñëw sax mënul daan Tidiane waruma woon jël sax du ma moroomam maa ko mën fuuf waxoon naa ko mais mënu ko woon gëm quoi mais gis na ni mu demee moo tax dañuy jékki-jékki toog parce que boo bokkee ci làmb jékki-jékki am yenn gàllankoor yi da ngay waat mais lan moo la gàllankoor. waaw mais xam man man dama jàpp benn affaire. Mhm. defe naa ne mës nañ ci waxtaan. da nga dem a benn instant nga nekk en ascension maanaam ngay dem. nekk ci kaw. mu mel ni ki da jékki-jékki rek bàyyeeku nga naagu. il faut du naagu dootoo entraîner sérieusement mais dañuy waxtaan quoi dañuy waxtaan naagu dafa amoon mm. wala doonatoo woon di entraîner sérieusement man xaw ma man su ma amee combat mm. su ma amee combat damay entraîner mm. des fois nag su ma neexee aw ma combat may def benn séance mais su ma amee combat dama koy jox lu ci war ci côté bépp nag mais dafa lamb dafa toll foo xam ne dafa laaj moyen dafa laaj moyen xam nga boo bëggee basé wu ci sa cachet rek day demee neneen. mais yow mii di demee ay États-Unis yaa ngi dem depuis 2007 d' accord d' accord donc wax ne amoo moyen yooyu préparé sa bopp mais des fois doon sóor ne naa préparé sama bopp rek. doo ci nangoo def yenn moyen yi. naa préparé mbër mi may daje rek te làmb. Hmm. nekkul mbër mi ngay daje rek. Hmm. loolu dama ko yéex a xam ci làmb. nekkul mbër bi ngay daje mbër mi ngay daje rek mooy sa adversaire jouru làmb. da ngay jóg jël komba mbër mi jóg pour daan la keneen jóg pour nga daanu. loolu dafa yéex a ñëw sama moyen. mais combat bi ma yàlla defee ma sóor ko suma maayen préparé lépp gis nga li ma ci yàlla defal te li des sama làmb noonu laay doxee dootuma préparé pour mbër mi rek xalaatu ma ko mais ngay préparé pour pour ñëpp. mais est da nga leen di xam. non jarul xam. pour ku jóg a am. da ngay blindé wu quoi. waaw yàq du yàq dara waaw loolooy problème mhm. mais boo sóoree mbër mi ngay bëri rek mbër yu bari looloo leen da ngay gis benn mbër yéeg ba ci kaw jékki-jékki rek wàcc. bëri na fi mbër yu def loolu ñëwaatuñ xoolal ñi ma bokkal génération. xoolal ñan la tey ñu ngi ciy tey fëgale mi ngi ciy tudd mu bëri chaque année amu ci ñeneen mu bëri chaque année mais dama yi nga xaw a ne man maa fi daan diw diw diw du ma naagu parce que man Baye Fall laa man du ma star naagu def sa bopp star man taalibe Serigne Saliou laa du ma naagu gëw ma ay naagu ay star mais mbër yu si bëri looloo la ne kii ah. non bëri na ci ay mbër mais man du ma naagu man gisoo booy ñooy sama gaayen koñ bi man xale yi ñooy samay gaayen du ma naagu xaw ma loolu parce que ñoom laa lu ma réeréelu ban njariñ diggante boobu noonu moment de baisse yi. Mhm. ak moment bi nga daanee Jokal. ba nga ci jugee lan la fëgg la jàngaat lan la defaraat. ci lan la defaraat rek asaka gu doon romb la romb na. asaka mel. waaw asaka bu waree génn génne woo. moment de baisse yi asaka la. asaka la. Ah. waaw parce que tey mënoon ngaa daan sax ñëw tey maar day taali. Mm. mais comme asaka gi génn na yokkute amaat fii. yeneen xéewal yi yokk ci mm. diggante bi da ngay jàpp ne asaka li ci des mooy li suñu kanam. lan moo ci des. gaa yi ci boppam moo ci des ñi nga xamante ne amee nañu revanche war ko joxe mm. buñ ko joxee ren dinañ ko joxe buñ ko joxee ren dinañ ko joxe far force. léegi ma ñëw ci ci yenn combat yoo xam ne mën nañ wax soo sont des des potentiels adversaires ah. waaw benn su ma limee Sa Thiès de un. beneen bi bu ma limee booy Bawal. waaw parce que dégg naa yéen a yow ak moom ay aéroport Blaise Diagne xam ngeen a toj vitre yi. loolu ah. di leen di leen si ñëw sama gars yi nee nañ doo moromam mais dafa am lu leen boole. comme dafa am lu leen boole parce que dañoo wàcc aéroport. ñoom ñaar ñuy buuxante foofu. waaw parce que mbëri dañu taamu bu ñu la nuyoo di la teese di la pes di la tese. man du ma benn booy bu may tese dafa ma doon tese man ko man du ma kenn du ma mm. lañ fa jàppante moom xam na ko xam na lam ca yëg. Mm. bu ko ñoree luñ ko ku ko seeti rek na wax li mu bëgg du ma ko laaj du ma yaa ngi dégg. du ko laaj. mais gars yi d' accord ruñ ah nañ. waaw gars yi d' accord ruñ parce que dafa am làmb lu ne. Mm. mooy gis nga dafa am saakees dafa dugg lam saara. laaju ma ko nag. saakees. laaju ma ko na leer ko pour en guy gi dafa dugg lamsaar ak kan jokkeel dafa dugg lamsaar moom sax tane na parce que duggaat na fi mais dootu ko defati dootu ko defati mm. mais mbëri dañuy dugg lamsaar jël yenn mbëri yi teggi fëga la Ama Ama Baldé Ama Baldé moom dugg na lamsaar ñam na fi ñam nañ ko waaw am na am na ñam ñu ñam waaw daa ñam ñu ñam ko kon ñamante moom bu ko neexee mm. ci kanam ñu may revanche bi bu ko neexee das sit 1-1 la amul problème boobu neex na torop Ama Baldé neex na ma parce que bu ma gën a métti suma life moom la. combat boobu combat Garga Mbossé. moo a métti ñaari ñoo ma gën a defet yooyu ñoo ma gën a yooyu ñoo la wàcce sax. parce ñoo ma merci combat yooyu laa ñàkk waruma ko ñàkk. waaw moom faxas sax parce que moom. dama bëri ci boo ñëwee di nekk si benn yoon. Mhm. am na ñoo xam ne il sax dama bëri moom kaw erreur. Garga ma ñëw naago parce que waru moon bëreeg moom boobu parce que jàpp naa ne moom moo tax nangu naa naagoog erreur yëpp d'accord xam nga ma ne ñoo ma gën a yooyu parce que parce que li tax mu métti la waaw parce que ñoo la delloo ginnaaw waaw ñoo ma ma bëreeg foofu nga waroon tàkk ba foofu dem sa yoon loolu am na tàkkoon nga sax yooyu noonu ñoo la ñoo ma arrêté a arrêté ñoo ma waaw loolu dëgg la uh, ñoo ma arrêté moment leen di jël naagu woon non naaguma Ama ah, bu ma koy jël naaguma parce que respecté naa ko lu ma leen waxoon ci combat ba ma ci jógee ba tey la moo am nest boobu ba tey leen man ni mu daan dina fi daan keneen ku dul man mhm. daan na fi Malick Niang fi daanaat tafaatin Papa Sow mhm. waxoon naa dina fi daanaat keneen ku dul man parce que ñeneen ñi muy dajal man leer na ma ne li nekkul ci ñoom xam naa leen ñun xamante nañ suñu biir ñun bëri ba ma daane daal dina fi daanaat keneen dane ma wax bu bi tamit métti bu garga bi na ma metti na ma parce que ni mu demee la. dafa yomb dafa yomb. dafa yomb mais waa ñëw jàpp la daal la ngeen dafa ma sax maa songu ñëw jàpp ma waaw mu daan la dafa yomb maa ñëw songu songu bu kii mu li ma lay wax mooy sa naagu bi rek mooy jamono yooyu da nga naagu woon fëgale fëgale man xam naa dama naagoon nangu da nga ñëw nekk benn playboy di jaay gaay nandite hmm, maa leen gën a maa dama leen ñëw nax leen dem sama yoon waaw ah, mais defaru naa ci defaru naa ci hmm. defaru naa ci ku ci mel ni Père Mbaye Gueye maa ngi koy préféré di ko sant bu baax Tigre de Fass ñu koy ziar moom mm. daf may conseillé bu baax tey am na benn benn benn gëmaat sa bopp bi ngay gëm am na benn taxawaay bi ngay amaat ci làmb moom bokk na ci parce que déggante nañ ba ma nekk Amérique waxtaan nañ mu ñaax ma te mënoon na ko ci bañ mu may conseillé bu baax ak Père Birahim Sakku xam-xam Mansour Diop maa leen di sant bu baax xam nga nekk Amérique paa di la wax seen xam nga di la wax sa bopp ci fi ni nga mel mm. am na lu lay defaat te am na ñu gënoon yay am na ñu mais fekk la nga bokk si làmb moo tax ñooñu wax la ko waaw père père père père père père Mbaye Gueye ñu koy nuyu mhm. père euh, bi nga wax Birahim Ndiaye père Mansour Diop mhm. ñooñu ku leen xam uh-huh. xam ne bu ñu demee boo wax dara ci mbër rek am na lu ñu gis ci mbër boobu. da nga waaw moo tax moo tax mu defaat ñu leneen defaat ñu beneen liggéey amuñu temps démb lañ ñëw. tey la ñuy toog ak Baye Fall duudoo ngi nii baraada bi waaw. fourib bi daa mel ni wàññeekul. mais fii caay nu ñeenti guux la. noonu lay ah, demee quoi noonu demee waxtaan nañ ñi ngi liggéeyaat. Hmm. démb lañ ñëw tey la ñuy noppalu. suba dañuy suba dañuy entraîné ji suba dañuy. commencé saal suba commencé entraîné suba ma commencé saal waaw suba ñu commencé saal li ñu ci defee doyul. non doyul dañuy commencé saal géej gi rek buñ contact gi commencé. ñu nekk nga doon entraîné foofu saal boxe. waaw boxe saal. Hmm. musculation saal léeg-léeg nga laal judo rek semaine bu ne benn fois. mais ñi fi gis nii ñi nga bëgg a jël nii il faut nga am doole kattan dëggantaan. déggoo li ma la wax man ragaluma dara dara yéem ma Modou Anta ci boppam combat bu saf bu ma neex la man max ko doon dimbali neex dégoole ma max ko doon dimbali moo tax bëriwut ak ñun moom dem na ba xam ne dafa am ay lamsaar moo tax mu nangu licence ci max xam nga max yàlla dafa dogal mbër mu nekkul dara mën na laa dimbali boo demee ba nekk as say mbokk récupéré la moom loolu njiglaayam la loolu sax wax dama koy tooñee mm. naan ko bàyyil mbër ngay jël ci àll ba mm. koo ci dimbali ba million ñëw ñu dàq la mm. te dañuy yàq dañ lay yàqal sa njaboot daf fi am ay adversaire moo tax mu nangu licence mais ne loolu Max xamoon na ko bu yàgg mais musu fi nekk musu fi entraîné dañoo amul woon récépissé Max dimbale ko suñu récépissé mu ciy bëre moom wax na ko musu fi ne day bëreeg ñun am na fa adversaire dañu bëreeg ñun man maa ko sox man maa bëgg a bëreeg moom combat bu neex la neexul sax maa ko man mais yaa ngi dugg mais maa ko am lu ma ko meral moo tax. loo ko meral. gis nga la écrit defaree teranga da xam teranga bu ñu la defal. Mhm. am na benn année boo xam ne suñu licence moo ko may million. Mhm. parce que sinon du bëri année balance lay def. Mhm. mu mu bëri suñu récépissé écrit saar loolu daf ñu ko war a gërëmee. léegi ko meree bëgg ngeen loolu laa ko meree bëgg ko corriger nit day xam teraanga musul am combat. mais saa yi kooku dafa dafa tàng de. booy kees boobu noonu bàyyi faal boobu noonu. courte masse la nii la toll. a doonoo masse. courte la mais gis nga ko temps yi gis nga ko. gis ko bu baax courte masse la. yow gis nga gis nga yow. courte masse la seetaan nga combat moog moog moog Baye Mandione. courte masse la Baye Mandione da ko waroon daan ni mu demee la courte masse la ni mu saa yi liggéey am doole. su bëree man dama koy dëbb naa xale bu ndaw xale fan bàyyi ma xale gars yi ñu bëri bëri bëri ñi nga naan xale xale yi li ñuy def sax mag ñi duñ ko def. Mm. fii ci dëkk bi xale yi li ñuy def mag ñi sax duñ ko ref mag ñi dañ reer tëdd xale yi nañ reer fanaani feneen. moo daan da yaa ngi dégg ah. Hmm. nee na boobu moom moo ko neex. man de neex na ma xaw ma nag. Malick Niang Malick Niang men. waaw gis naa ko muy fëgg loxo yi fu ñu wax muy fëgg loxo yi. Hmm. ku ñu wax mu ne buñ ñu tëjee ci néeg buñ ñu tëjee ci néeg làmb ji ay jigéen nekk ji ay góor a ci ne. Hmm. yaa ngi dégg. moom Malick Niang Malick Niang jarul tëj ci néeg xam nga kenn du jël. mais yow mel ni kuy wax ak man kenn du jël ñaari nit. di leen tëj ci néeg. yaa ngi man mën naa ko jox sama numéro bu ko neexee mu jël 77 441 11 18. ngeen daje. na jël fu mu neex néeg bu ko neex mu ubbi ma dugg pare mu dugg yooyu amul. lamb ji ay wagaa ngi fi na pat ak moom ay waga ñu ngi ci lamb ji na pat bu heure jëf jotee ñu jëf mais bu ñu waxee muy dóor loxo gars yi ragaluñ ko bu avancé am traîné ma man lekk ko Kéba Kanté ko yor defaral naa Jokal na ko na ko jël xool. jël revanche waaw xool. man nag dama gis ne yow bi nga jógee étage dafa mel yow dafa am yow di di nuyu Cheikh Amar bu baax. Cheikh waaw Kader Ndiaye. Hmm. waaw ñooñu ku leen gërëmul waroo leen xalab dégg nañ muy am lu muy lancé ci ñoom naan am na société bu mu doon tudd ñooñu bu leen tudd ñu tudd leen ay alalu Serigne Saliou lañ ñoom Serigne Saliou moo leen defaral yaa ngi dégg jàppale nañ ko ba àdduna xam moom xam na ki may waxal Malick Niang laay waxal wax jëwuma man damay wax direct yow dama ko seetaan moom aéroport ko seetaan dama lu mu wax am lu mu waxee cof wax ji wax kenn du ragal da nga koy ñeme am na droit nag Kader Ndiaye ak Cheikh Amar ñu ngi gërëm baax taaliba Serigne Sall yooyu. léegi man mën naa dugg ci moom. man maa ko bëgg bu ma ko fekkee stade du ma ko may jàmm nga bul dugg ci moom. man maa bëri Maliña bul dugg ci moom. waaw doo ma bàyyi yaa ma fi Sa Thiès Modou Anta. xoolal kii la fi dóor mu daanu. Adama Diouf Adama Diouf maa ko njëkk dóor mu daanu bopp bi yëngatu mu ñëw mootali kese la ci def. <laughs> yaa ngi mu daan bi yëngatu dóor mu daanu bopp bi moom mu ñëw mootali kese te benn dóor mu daanu la fi am na ma jël. waaw kalaaf la fi jël jël naa fi kalaaf bu mu ma sonal. mais bëri nga adversaire si arène bi de. torop torop sax torop laa wax nii bëri naa adversaire torop. torop sax gars yi ñoom ñëpp yéen nañ ma jox sama morom rek. booy bu prouvé nag. ñu fay ma xaalis ñoo sa morom Modou Anta Sa Thiès maa di Modou Anta Sa guy gi. guy gi mel na waaw dugg guy gi. nee na defaru na lan moo téye mu jël ma guy gi lan lan la fi def guy gi. loo xamante ne doyal non doyal parce que gars yi dañuy ñëw rek mbapat ak moom man du ma mbapat ak moom day sàngoo loxo yi. nee moom bu saf sap kenn musu ko dóor. bu saf sap bu muy taxawal di dóorante dóor yu métti parce que day yooru jàpp la. moom day taxaw xeex raag bu neex. na ma jël ba encaissé quatre vitesses yi. moom guy yi. na ma jël ba quatre vitesses yi dal ko mu xam ne lépp lépp dëgg la. quatre vitesses mooy ban ak ban. na jël rek xam nga gars yi cinq vitesses la ñuy dóore. Hmm. man quatre vitesses laa yor moom doful du ma jël. guy ba muy dugg fii di bëreeg nees man la waroon bëreel hmm. mu tëb mu tëb ma. ma dem bëreeg Saalum Saalum daan ko. mu pare ñu war a bëree. promoteur seere ko mu dem jëli Siteu di encouragé Baye bi ñu ngi koy ziar. Siteu waaw ko encouragé. bu baax ñu ngi ñu ngi koy nuyu di ko wax liggéeyal yoonu ndaw du gaaw. yàlla bëri na suuf mais yéen a ah? waaw ñu ngi déggante ñu ngi déggante. ñu ngi déggante. Euh, bu ñu jugee ci lool si potentiel adversaire kon gars yi gis ngeen ko peut-être xam naa yéen. Yékini Junior. waaw Yékini Junior Papa Sow. yooyu yëpp ay combat la moom kay buñ fi limee suba ah, Papa Sow Yékini ñooñu dama war a bëreeg ñoom lan moo tax yooyu moom neex na moom ñu ngi waroon bëre daaw dox ko mm-hmm. eh. mais alors bu ñu jugee ci yooyu si potentiel adversaire yooyu tey boo xoolee làmb ji bi nga mm. demee am na coow bu fi am CNG les lutteurs en activité bañ def ci waxoon naa ko man maag Laasana dañuy déggante loolu waxoon naa ko tey xam nga na maa ngi leen nuyu en passage bu maa leen nuyu. ñoom ñëpp mbër yi quoi parce que association bu def baax na ci mbër yi parce que gis naa ñu def fi ay ay geste saa Kajoor di préféré nuyu sama copain saa Kajoor ñu ngi doon déggante maa ngi koy bëggee bu wér xam naa fan yi dinaa fa dem. waaw moom avant ay mbër di def loolu ñu ngi déggante ñu ngi koy jàppale ci liñ mën. xam nga ñu dina yóbbu ah, daje nañ ci ah, suñuy kër sëriñ. wax nañoo def nañ ci liñ mën am na duñ loo xam ne duñ ko wax te dinañ ko seede ci kàttanu yàlla xam nga li ñuy def moom ñun ak moom la suñu gaañ la avant muy feebar ma incha allah incha allah bu ñu fay dem ñu ànd nuyu Saaka Joor maa lay big ba ñuy déggante suma waay la waaw waxoon naa ko xam nga tay tay na fi Alioune Sarr jógee xamoon naa ne fii la ñuy mujjee moo tax ba ñuy réunion du ma dem fu ñu jëm dem association baax na trop ci mbër yi mais nee naa la woon tay tay na fi diw jógin baaxul ci diw mu tabax kër fondement def lépp ba kerlu deñ nañ ko bàyyi mu kerlu suñu borom mooy folli amul mbindeef buy folle doomu aadama waxoon naa leen ko tey ñuy prise Matar Ba di ko béggee ci confiance bi mu joxaat saar Sarr yee Tyson profito occasion bi mu ci dugg lu ma neex Yékini père Mbaye Gueye lu ma neex mais na ci dellu na ci dolli père Birahim ñu am fa ay ancien gloire am na ci solo. connaisseur la connaisseur la. gisee woon coow li ñoom nee nañ dagg yi. waa dagg ñoom Alioune Sarr ak la loolu mooy li ma la wax rek xam nga tey na fi diw jógee loolu du yoon. Hmm. loolu laa leen wax quoi di nuyu père Tafa bu baax xam nga moom doon nañu waxtaan lu bari. bien Tigre de Fass. bien waxoon naa leen ko daal na leen na fi diw jóge du yoon Alioune Sarr na fi jóge tey tey Alioune Sarr ci làmb man dama ko doon yërëm billaay wallaay dama ko doon yërëm yërëm bi ma ko doon yërëm mooy tey ku sonn ci dara ba loolu am njariñ mbër da nga daan pare doo jot sa xaalis dañ fi daan jàmbër man am na kasetu làmb yu ma seetaan performance maa ngi koy nuyu looloo ma gën a neex ci làmb mu toj bi teel dàq ji arbitre bi loolu dama koy ree ba tey yooyu amatul xam nga ñu ne tay tay na fi jógee moo tax man bañ waxee dooleel nañ ko CNG dama kontaan. mais mais en tant mhm. am na yoo xam ne ñu ngi ko doon lenn moo ma lenn lenn waaw kay dagg yi dagg yi dagg yi dinañ ko wàññi. Mhm. mais gis nga ku yor ay ponkol yor seen doole mënoo leen jubbanti lu ne laalal seen poos mbër dafa bëgg xaalis nañ wàññi dagg yi nag métti na man mosuñu ma dagg maa ngi koy sant yàlla du sama njàmbaar mosuñu ma dagg te amul lu ñu deful ci làmb te defu ma lenn moom a métti mooy ndaa yi nañ ko indi indil ñu suñu butéel 5 litres suñu butéel waaw loolu aar la daf ñu neex bàyyi ñoo suñuy sengoor yu bëri yokku temps bi ci géew bi ñu mën a jël suñuy bain normal aar yooyu moo manqué nañ ñu dolli loolu mais tey bu ñuy wax euh, si benn bilan. Mhm. nga tiireel ma benn bilan xam naa fa la ñuy jeexalee ci écurie Lansar. waaw euh, saison bi ñu génn yaa fa am victoire. ne ko réel euh, ne ko réel waaw ak euh, Tigre Junior Maama Lamine waaw mais ñeneen ñëpp nees ñëw ndeysaan si ay deux minutes Sa Thiès dafa ko ah, ah. ñëw rek song moom patam patamee ko Sa Thiès dafa ko affaire Siteu sama copain Baye Fall maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw Siteu defetam moom man defeta Siteu defetam keeruma ko mm-hmm. Siteu defetam moom keeruma ci dara parce que mënoo sa bopp toj quatre heures nga ne nga ngay sa deret di ngay miir tuus ngay miir di jaabante sol laa fa mënuñu la sotti saafara sax ci bopp si te defetam keeru ko moom moo bëggoon dem daanu loolu laa ko wax demee këram moo ma fa nekkoon du bëre du ma taayal ci di ko wax wala dañuy rayante foofu defetam keeru ma ko guy gi def victoire la nag arbitre bi moom la jox na ko victoire bëri nañ ba mu daan ko dama koy féliciter di encourager si te mais pour man si moo moo joxe defet bi rek guy gi mën ko am bilan bi waaw baax na parce que mën waaw du sauvé parce que dañ ma daan sauvé. du sauvé daawaati géej daanu naa ñoom ñu daan. xëy waaw ma ak ne ko réel daan na. ak ne ko réel waaw d' accord mais loolu la yàlla dogal rek ñun victoire ak Jokal loolu du victoire bu ñuy manifesté wu. ndam la ndam la rëy na. beneen affaire la waaw sante nañ ko yàlla. sant nañ ko yàlla li gën a indi combat bi sax loolu ci la bokk. parce que boo xoolee gars yi jëkk la génn daanu amoo droit def erreur. da ngay ñëw assuré ko. nooy jàngatee seen. performance bi baaxul. waaw booy daan nañ mag ñi ñoo échec te bu mag ñi échecgee rek day feeñ ci écrit li ma di wax rek ñu liggéeyaat def réunion liggéeyaat toog dañu war toog def réunion liggéeyaat daal di ñaan ren saison ren manquement ci biir. waaw manquement bi mooy staff bi. manque am na manquement. mais manquement yi nekkul tamit ci mbër amul mbër ba di entraîner respecter entraînement yi. day am kilifa am nañ kilifa kilifa yee teg mbër ci yoon. Hmm. Lamsaar fi mu toll ci làmb mujjee ñëw bokk saa yu ñu limee lim ko max wax na ko. daan jël première daan jël première commencé di jël première bi lan moo tax jëlatuñ ko nañ ko def. kenn du ne gis jëlatuma pay pay moo dàq lépp kenn du gis pay naan daara bee dàq daw. mais eh, pay boobu la ñu war a rayante jiwaat. te ren am nañ ci yaakaar dinañ waxtaan suñ biir réunion. bu ñu staff bi woowul ñu woo leen man ma man bu ñu la bu ñu wootewul man ma woo mbëri Ah. non yow ñu waxtaan à travers fii nii. Mhm. woo nga leen biir géew bi géew bi eh. woo naa ñoom ñëpp ñu ñëw ñu waxtaan ah, liggéey te dinañ gisee dinañ gisee ñun ñëpp ñu ngi doog ñëw moo tax ñun ñëpp dinañ gisee war a commencé entraînement yi. ba leen toog yoo xam dañuy toog ba seen combat des un mois ñu door dem écrit ba di contact non loolu munul am non loolu munul am parce que ñëpp mafia bi ñoom ñëpp ay ànd mafia tarkindaay ñoom ñëpp ay yee noonu la demee waaw lenn daal laa xam ne fàttal nañ ko. muy bëggee Baye Fall yi. <laughs> waaw kay maa ngi bëggee Lamsaar Tiwaawan bi ah. waaw waaw bëggee Lamsaar Tiwaawan yëpp li ma bëggoon wax li si bari wax naa ko nag hmm. profité naa wax ko sax laay wax li ma waroon wax yëpp. di bëggee Baye Fall yi. man. waaw aw ma dara. maa ngi sant Serigne Saliou bu wér. ñaari soxna di ko xamal ni lan. ñaari soxna nga waaye bàyyi ma waaye nga xam ne ñaari soxna. waaye bàyyi ma. Oh, wuy ma ma oh, déglu ma. li ma ne est-ce que fàtte ma daal am na ki toog oh, mi toog di ma seeraan. Ah, yàlla bu ceddu gu. lan nga réaliser ci làmb. nag wax dëgg yàlla defal na ma lépp man. tey bu ma bàyyi woon sax neex na. tax na fu ma bëgg a dem ci àdduna bi dem. defal na ma lépp. may na ma loo xamante ne nit jàng na ba bari ba bëy am ko yàlla dimbali na ma xam nga may na ma lu lépp lépp lu nit di am teraanga ci ci ci métier waaw ci métier lépp lu nit di am ba sant ci yàlla man sant naa ci yàlla waaw man sant naa terrain yi moom bari na yi ma tabax yi ma tabaxagul bari na bari lépp bari na <laughs> sant naa Serigne Saliou man Serigne Saliou defal na ma lépp keeruma dara mm-hmm. waaw Serigne Saliou lépp li ma ko ñaanoon defal na ma ko maa ngi koy sant bu wér waaw di sant taalibi Serigne Saliou boobu cun maam Bambi maa ngi lay sant bu wér di bëggee ñëpp bëggee waa Thiaré Géej ñëpp mafia bi tarkindaay maa ngi bëggee ñëpp mafia duuru bi bopu koñ bi robinet pas sam bi booy ñëpp du ma lim Badara Paate Ba sama copain mafia bu ndaw bi waaw mafia dëgër bopp bi duudu ndambe bi mafia dëgër bopp bi ñëpp di profité nag di nuyu sama yaay sagar lii bu ko dagg sama yaay jooj nga xam ne ba may nekk Amérique jóge entraînement lekk ba pare sax mu may laajaat ba xam coobaat nga yaa sagar maa ngi lay bëggee bu wér di la ñaanal li nga bëgg ci njaboot yi suñu borom defal la ko sa doom mi ngi lay bëggee bu wér sama yaayu bopp jooju dem Amérique yomb na mais dem nekk ci condition yoo xamante ne bien na yombul dem Amérique nii yomb na mais egg nekk ci condition yoo xamante ne yu baax yu bakkane nag eh, di nuyu yaa sagar déggoo lex di lekk di non waaye ban gars yi fii naanoon soow yi million millions lañ defaat seen yaram pour baax waaw mooy loolu yaa sagar père Bidjel Fall grand ma Omar fay maa ngi koy bégee père Alsane bëbba sama seex sama copain maa ngi koy bégee père Alsane père Babacar père Ndaw ñëpp ma fiyaa jees bi ah F Ndiaye maa ngi lay bëggee bu wér suma xarit boobu. ñooñu la nga waaw that's it kon man tamit man maa ngi maa ngi nuyu gars yi maa ngi. Laurent profito Laurent sama xaritu tubaab bi Laurent maa ngi koy bëggee bu wér waaw. waaw Laurent big mi ngi Suisse mais ñëw na pour le moment xam naa nañ ànd stade. ok Laurent ñu ngi koy bëggee gars yi yéen tam ñu ngi leen di bëggee yéen ñu nekk Italie France États-Unis waa Catania maa ngi leen di bëggee waat baax a baax a baax a baax ah ñu ngi leen di ziar bu wér. jaa ngeen jëf yéen ñi doon seetaan eh, mbokk internet yi si géewu Sénégal lañ nekk deuxième numéro ak Feugeula incha allah rabi yeneen ñi invité làmb ji tijjeeku na géew bi tijjeeku na ah fii ci Sénégal la tijjeekoo jaajëfal naa Diouf kenn du yow Seydina kenn du yow Dira gars yi bëgg nañ alhamdulilah rabi alamin joxante dig daje prochainement sur Sénégal incha allah. big up.